waaw salaamaaleykum bonsoir chers téléspectateurs yéen ñi safoo seen seen El Vision Média ñoo ngi fii nga xamante ni moom mooy Grand Yoff ñu ngi nekk si collège bi nga xam ne mooy Yacinthu Thiandoum tey ji nga xam ne dañoo seet suñu mbokk séeréer yi waa Mawona sama mbokk moom doonu sama nawle boobu nga xam ne moo ma doon laajte mu di Zeyna sister Zeyna nee naa la man maa ngi nii sa yoo leen may wër maa ngi fii nga xamante ne fii mooy Grand Yoff maa ngi ni sister Zeyna fi nga nekkoon rek fa laa ñëw daw si waat ndax tey ji damaa fas defan rek sama mbokk yi nga xamante ne sama am di jàmm la muy waa séeréeru Morolan tey jii nii nee naa leen ba léegi ñu ngi fii ak waa El fii dina wàcc ba zéro yaa ma doon laaj rek maa ngi nii ba si biir si kanam rek nga gisaat ma ci biir naa la. ah waaw waaw sànq maa ngi lay gis macha allah ngay fecc lu neex ah wane yaram dafa tàng wane na am na benn mbégte boo xam ne yaa yëg mais lan ngay sentir ci bés bi. Ah, bés bi dafa rëy ñu rëy organiser ko donc munul munuñu ñàkk euh, wane suñu mbégte macha allah waa Petit Mbox yaay ak seen frère Ben Sirak may seen présidente donc dam leen war a jiite ñu fecc lu neex. ndax àdduna amul solo. yéen seen bés bi da ngeen koy def ah, chaque weer da ngeen koy def wala ah, yéen a koy doog a def c' la première fois. waaw c' la première fois ñu yoon bi xam nga ku xaw ma nu ñu koy waxee si olof jàpp suñu mbagg yi won ñu yoon bi moo tax ñu topp si ginnaaw muy suñu première sortie di waajal suupa beneen sortie soobee yàlla. ah waaw yéen a ko déggandoo kon soxna si ñoo lay wax a ah, jërëjëf rek ñu daay tàggatoo rek ba beneen yoon incha allah. ok incha allah merci beaucoup. ah waaw yéen a ko déggandoo ah, nee naa la Zara man sa nawle la bu ma toog ba ma sos ah, macha nee naa la man jiit laa rek sama kaw la rek laay daal di di futti li nga xam ne moom laa sentir moom laa bëgg. téléspectateurs ba légui bas bi jéxogul ñoo ngi fi nga xamanteni ah moy Grand Yoff ba ni ah ci bésu Abdou Fatah bi ñaan bi ba légui dara dara dara dara xewagu fi lépp rek day do a commencé nee buñ démé ba ci rek ngeen xamné ah, fi ni rek lépp fi tang ak suñu mbokk séréer yi rek rek rek lu ñu fi jotta won neex na neex na neex na neex na mais dañuy def luddul ah sama yaji nga xamanteni mako maa ko tuddee mama jongoma ndax gis nga def na tagalom bu baax def euh, musoram bu baax nag genn fi ni rek lépp ba tay ci bisu adu fata bi mais duma lu dul rek laaj ko moom nan la dundee bis bi maman nuy naa la. la. maman si la ni. sant alhamdulilah. maman lu waraloon tey sa teewaay fii nga xamante ni ah, nga def sa déplacement jóge fi nga fa nga dëkk ñëw fii ba xamante ni mooy Grand Yoff ñëw si bésu Abdou Fatah waaw euh, sama déplacement fii ci bés bi tey jii nii dafa duñ suñuy rakk di waa Mboxoyaay bu ndaw ñoo ñu tuddee te ñoom ñu bokk bés bi ak Abdou Fatah looloo waral sama teewaay fii tey waaw. maman est-ce que xam nga dangaa jongo ma. dañuy jéem rek. dañuy jéem rek mënuñu dañuy jéem rek dañoo am suñu mag ñu topp rek ñun mënuñu. waaw maman lan moo tax séeréer yi mën parce que ñu ne ah, dem nañ si événement bu nekk dem nañ si culture bu nekk mais ah, lu ñu jot a gis fii nii ah si culture séeréer doy na waar. xam nga nit ku amul cosaan suñu cosaan foo ñu fekk ñu ngi fowantu te ñun boo fi xoolee tey génération yu bëri xanaa léegi mais ñun ñii euh, euh, ci ba la ñu màggee donc ñun nii la ñu xam daal. dañ koo bëgg tamit suñu xol waaw. lan nga am tey ah, boo amoon tey looy wax Abdou Fatah tey si bësam bi. waaw xanaa di ko euh, ne mu gën a yokk góorgóorlu rek ndax euh, yoon bi gudd na te moom xam na fi may waxee ndax papa la ci man tey jii su ma xoolee mais ñoo yaroondoo quand même waaw dama xam rek yokk na yokk bu baax góorgóorlu waaw. waaw merci maman ñu ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. waaw Ngouda comme déggal ni ko sama maman bi waxee rek du ma def lu dul wax ak Abdou Fatah rek parce que nee mag dina toll fu solo di gis loo xam ne xale da koy jege te du ko gis Fatah déggal ma sama yaaju baax ji lim la wax rek ndax xam naa ni boo ko toppee rek yoon bi nga jëm rek danga fa yegg bu soobee yàlla di leen jaajëfal di demaat ba xuusaan jàll si biir rek xool ambiance bi nan lay tëddee ak suñu mbokk séeréer yi. ñëwee si bés bi nga xam ne tey ah, teew nga fi ah, ñëw gis li nga xam ne moo nekk Sambaku ah, nga fecc ba sa xol seetoo macha allah tey la nga yegg si bés bi. bon xanaa am kontaan bu rëy ñëw ci bés bi pour jàppale suñu waa village waaw. c'est ça. kontaan nga daal. waaw kontaan naa. sa xol seet na. waaw sama xol seet na. ah waaw yéen a ko déggoo gis nga tey fii ñëpp kontaan man man Paul Moussa Khada maa ay comme ni ko Zara waxee sànq. rek fi ma nekk nii man nee la man fu taxaw duma fa taxawal ku jongoma damay jaay sexy rek mais tey gis naa ku jongoma sama wet waaw xale bi nga xam ne dafa def ñuul ñuulaay kaaba googu bu ñëpp di wër rek mais dama def lu laaj ko lan moo waraloon teewaayam tey ci bésu Abdou Fatah soxna si nuyu naa la. ngi lay fay soxna si. nga def. maa fi. tur bi naka la. ça va. lan moo sa ci Abdou ba mu single bi rek. tey soo amoon tey lay wax Abdou Fatah tey lan nga koy wax. kontaan si moom lu muy wéy neex na trop yàlla jàppale ko nag mu avancé si jàmm. waaw ñu gis ne culture séeréer neex na trop trop trop yow lan ngay ñaax tey sa mbokku séeréer yi soo amee message booy lancé tey. ñu respecté suñu culture parce que ñëpp bëgg nañ ko lii mooy suñu culture war koo respecté ci boppam man moom kontaan naa bu baax ndax maa ngi ba mbuur ngir ngel bi kese. soxna si ñu ngi lay jaajëfal dégg nga. merci waaw nguude ma taxawaloon borom ñu laayu kaaba gi rek ah. ba léegi nee leen ñu ngi si bésu Abdou Fatah bi nee leen ba léegi fii dara jeexagul ah. ñoo ngi fii ba léegi fi nga xamante moom mooy ah, moom mooy Grand mais du ma def lu dul Zeyna mi ma doon wër sànq ba léegi rek mbokku téléspectateurs yi kon yéen koy laaj saa su nekk ah saaraam ngeen àndaloon tey jii si seen émission mu nekkoon fii ak waa El fi nga xamante ne ñu si suñu ngel ak gis nañ fi lu ne dégg nañ lu ne mais tay li fi séeréer joxe neex na torop parce que ni da da ngay sam sa culture sam li nga doon parce que nee naa leen ah, ku bañ li nga doon dafa fekk gën sé ñaaw man Zora tay gis na lu nekk mais sama mbokk séeréer yi laa joolaa laa la mais mujj naa doon far si séeréer yi rek di len jox dig daje en ah ba benen yon ak wa elvision Vision Médias nee naa fi ngeen kay branché rek fofu la wa elvision rek duñu may dara xalé yi judd rek ah, njëkk baax fii lañ fekk di len jox dig daje ba benen yon wasalaam incha bye bye